jërëjëf Sidi Mouhamadou Ba ne yàlla yokk xam-xam bi guddal sa fan alxuraan bi neex na lool macha allah eh, su ko defee dinañ jublu ci présentation suñu gan yu tedd yi nga xam ne ñu ngi jógee ko ba eh, Medina Baye bi bu sell bi muy diina bi nga xam ne Baay wax na ne li annaha madharu faydul xaatimi fiha rijalun zawquhum kal xaatimi sarrat laha sirru madinati nabii xabataha tan fi bila karuyubi radiallahu anhu su fekkente ne Medina mooy feeñuwaay faydu li nga xam ne mooy faydu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane te mu diggoon ñu ko Medina di feeñ waaye faydu boobu noonu bàyyi teg ci ne am na fa ay góor yoo xam ne seen mos ci yàlla mu ngi mel ni ibnu arabil xaatimi te ibnu arab ñépp xam nañ ko ci wilaayaam tey rek Seydi Cheikh Mahamad Taha waxtaanal nuñ ci moom ci ay waxam ak ci ay azwaaqam yoo xam ne mu ngi ko def ci lenn ci ay abiyaatam mu nekkoon borom xam-xam borom wilaaya boo xam ne bu jéggi dañu la woon bàyyi mu ne Medina am na fa góor yoo xam ne seen zawku mu ngi mel ni ibnu arab dinañ jàpp ne képp ku jógee Medina rek ibnu arab la bu ñëw ci ñun wala ku raw sax ibnu arab lu tax nga raw ibnu arab parce que ànd gi nga ànd ak bàyyi mi waxoon ne wa foktu fil irfaani man kaana yaarif kon ñu ngi sant yàlla ci loolu ñi nga xam ne mooy délégation yi fi teew ñu ci jiital suñu sëriñ suñu doomu sëriñ suñu sang ki nga xam ne mooy eau de javel pays bi eau de javel itam jotaay bi bu fi microbe amoon rek moom bu egsee ci biir jotaay bi itam da koy rey mooy Seydi Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahdi Cheikh Ibrahim Niass comme ni nga ko xamee at mu jot mu tew fii dégg nga taaral nañu jotaay bi jëmmi Cheikh Ibrahim ak leeram fees fi del taalibeem waaye di suñu sëriñ di suñu xalifa di xalifa seydina moolaana Cheikh Alassane Dème di fadilatu Cheikh Mouhamadul Kabir Cheikh Alassane Dème moom itam mu fi teew ànd ak Cheikh Mouhamadul Mahdi jóge ba Madina eh, Cheikh Kabir nekk di xalifa Thierno Alassane Dème kon amuñ sikk ne moolaa Cheikh Alassane Dème moo teew ci jotaay bi waaye ànd ak Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci jotaay jotaay boobu nag lu fi nit amut ci yow la waaye dara manqué wut fii mboolem bunt yi rek ubbeeku nañ ñu ngi leen di tatagal ci eh, pàkk bu tedd bi ñu ngi ci tegaat itam Cheikh Mouhamadul Amin Ousseynou Niass moom itam mu ngi ànd ci délégation bi Eh, mu ngi ànd ak itam Cheikh Ibrahim Mouhamadul Mahdi Niass di doomam ñu ngi leen di si bu baax ñu ngi ànd ak Cheikh Omar Cheikh Alsan moom itam ci eh, démb mën naa wax léegi mu fi nekk ak ñun di xaritu sëriñ bi di wëllëreem ñu ngi koy tatagal bu baax ak Cheikh Tidiane Cheikh San Dem ñoom ñëpp ñëw nañ ak Seydi Cheikh Taha Cheikh San Dem mu ngi ci jotaay bi billahi ñes marhaban fi ñuy waxee di àggale nii cheikh maam alaaji muntaka di sëtu ci maulana cheikh ibrahim radiallahu anhu waajuram bu góor di cheikh mohamad muntaka cheikh ibrahim ñes moom itam mu ngi door a egsi nii ñu ngi koy tatagal bu baax a baax eh, ñu ngi ànd itam ci délégation bi seydi Chouara Cheikh Assane Deme moom itam Seydi Chouara Cheikh Assane Deme mu ngi ci jotaay bi ak Serigne Aliou Niass moom mu ngi ànd ak bi ak Cheikh Ibrahima Maygam Niass moom itam mu ngi ci jotaay bi ak Cheikh Mouhamad Tayib Niass moom itam mu ngi ci jotaay bi ak Cheikh Hassan Elimane Niass moom itam mu ngi ci jotaay bi Cheikh Alhaaji Moustapha Niass moom itam mu ngi teew mu ngi ci jotaay bi ak Seydi Baye Cissé Mahi Niass moom bi ak Seydi Pape ñu ngi fii itam ak Chérif Cheikh Sadbou ak Imam Mahdi yu Baro ñoom itam wëllëre leen ci sëriñ bi di bàyyi Ousmane ñoom ñëpp ñu ngi teew ci jotaay bi ñoom itam ay shorfa walañ bismillah Seydi Ali Tamasini Cheikh Assane Dem moom itam mu ngi eh, egsi nii ñu ngi koy catagal bu baax ñoom ñëpp ñu ngi teew su fekkee ne deretu yonent bi sallallahu alayhi teew na fi deretu Cheikh Ibrahima Niass deretu Mawla Cheikh san dem teew na fi kon ñun suñ jotaay bi amuñ ci sikk ne mboolem xiiw yeeg mboolem bunt yépp ubbeekul nañu yal na yàlla nangul ñu ci zaar ak ci baati ginnaaw loolu itam ñu présenté ñi nga xamante ne ay njabootu Mawla Cheikh san dem lañ ci ay soxna ci njiitalu Seyda Zahra Chassan Dem di xaritu xadara bi moom itam di soxna su sell bu baax bëgg mbokki taalibe yi ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fii ci barke Baay ak Seyda Halimatu Chassan Dem ak Seyda jëw Njaay ak Seyda Maam Fatou Touré Niass ak Seyda faatu Ndiaye ak Seyda Aïchatou Diallo ñoom ñépp ngi ñëw def délégation jógee ca Medina ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci teewaay bi yal na yàlla fayante yéen ci lu baax ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ginnaaw loolu ñu ngi présenté itam suñu sëriñ ki nga xam ne ñun bu ñu jotee Baye Ousmane moom moo tax moo ñu yaral Baye Ousmane dégg nga def lu rëy ci moom ba liggéeyu Baye Ousmane tey law fu nekk ci àddina bi di Seydi Mawlana Cheikh Mouhamad Dramé mi nga xam ne dégg naa Cheikh Mouhamad Mahdi di wax ne wali yu malaamit wi la loolu nag ñoom ñi nga xam ne ay wali ñoom ñoo man a xam ne wali ndax Baay moo leen waxoon ne talabtukum fil ghaybi fil ghaybi wa antum awliyaa lillah sàkku naa leen ci xëy bu fekk yéen ay wali yàlla ngeen kon wali yàlla rek moo mën a xam ne wali ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàggal ko suñu kanam li yëpp ci liggéeyam bu rafet la ak bëgg sëriñam Baye Ousmane ci njiitalu baay Modou Mbaye ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay waxtu nekk wala at mu jot dinañ taxaw taxawaay bu rafet dégg nga ci wetu Baye Ousmane bu lii xewee fii mu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci seen teewaay mu ngi présenté itam Baye Lamine Ndaw di muqaddam bu mag liggéeyal Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nekk fii ci Kaolack ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam Cheikh Ali Ndiaye moom itam mu ngi ci jotaay bi ñu ngi koy gërëm ci teewaayam eh, ak Baye Mamadou Sall moom itam mu ngi si jotaay bi ñu ngi koy gërëm ci teewaayam fii ak Baye Ka moom itam ci saara fii di muqaddam bu mag di wëllëre ci basumaan moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ci teewaayam yal na yàlla farante moom ci lu baax ak suñu baay Seydi Abdourahmane Touré moom itam mu ngi ci eh, eh, jotaay bi di wali yàlla bu doy waar moom itam ñu yàlla yal yàlla may ko wér ngeen ñaanal ko yàlla itam mu yàgg fi lool ak ñun ci barke Baye ak Baye Touré jógee bokk woon su ko defee ginnaaw loolu itam présenté waat rek sëriñ bi Baye Ousmane ak njabootam yu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal ñun ay soxnaam ñoo nekk fii li jotoon a bind rek lañu euh, euh, euh, wax balaa muy gën a guddi dinañ commencer paroles yi am nañ fi ñaari discours discours ci arabe ak discours ci france ki nga xam ne moo ñuy defal discours arabe bi mooy Seydi Moussa Lom Moussa Lom fu mu mën a nekk rek na jege si mu ñëw defal ñu discours bi ci arabe bu noppee ñu door a jox Seydi Ibrahima Kanté bismillah Moussa Lom alhamdulillah